alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani bu ngeen jàppee seen woow farlu leen ci sabba waaye bu ngeen këppee seen jë farlu leen ci ñaan ndax jaam bi waxtum gën a jegee boromam mooy waxtum këppee jëm boobaa nga ñaan lépp la bëgg bu fekkee ne mënuloo arab nga wax ko ci wolof sax ci biir julli gi la bokk nga ñaan doonte da nga naan diw yàlla na la yàlla may nangam sax mu ngi ci biir julli gi la bokk nga xam ne daal boo këppee sa jë ci ñaan ngay farlu di ñaan di ñaan di ñaan ba siggi loola tax rakka bu mujj bi nga xam ne fekk na nga gën a mën a teewlu nga gën koo yàggal ngir ñaan bu bari gën a ñaan lépp boo taayaa ba sëlmal foofa la tasawuf foofa la la xaqiqa di waxee julli nga waaye bu fekkente ne fiq moom fi mu lay diingate ci julli njàpp ndox mi nga jàppee baaxul wala njàpp mi ko wala yow mi da ngaa këpp këppal leexti daal ak tumaaneel jifoo ci lenn bi nga dayee ci say wóom bi nga ci tëyee daluloo fa dal goo xam ne nee nga tekk bi nga siggi waatee da nga dal di sigg taxawoo ba ne temm toog fa ab diir bi nga këppee sa jë néewloo fa temm ab diir soog a siggi bi nga siggee tooguloo ab diir ba dal soog a sëggaat loolu rekk la la sharia mën a dingate waaye li ci sa xol moom fiq du la ko jàngal tasawuf moo lay jàngal na ngay sellale li nekk sa digganteeg sa borom ak na ngay teewloo moo la koy xamal julli googu nag nga xam ne moom la la tasawuf di jàngal moo tax ñu ne alquran ne inna salaata tanha anil fahshaai wal munkari julli day setal xolu boroom ba day ci génne lu ñaaw sopp lu bon sopp tooñ daf koy dindi ci xol kooku ki jox julli xaqam nga xam ne phase yi julli yëpp bu ci nekk dana ca fas la ca war moom lay julli di namm xolam ba yooyu yëpp dootu ko dugg mu jub loolu moo tax ñu ne julli mooy gën jaam mag di jaamu julli mooy li nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala mi ko joxe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa nga xam ne jibril mënu faa àgg guddi gi rañaan gi bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam demee ci kaw alburaax ba alburaax mënatula weesu fii bu weesoo leeri suñu borom yi tar yi ko ba mu seey moo takk diggante ñaari xale yi kon nag nan gàttal ma bi dañuy dem rek euh, mbirum koor ba tey li ma leen wax ne daañu leen ko jàngal kon boo wooree ba wori sopp nañu nga gaaw a fay ndax ëllëg yàlla rek ko xam xamuñu lu lay dal ci li def ci at mi te boo nit li see ba lépp dal la loo xam dana tax doo mën a fay ba ween koor ba ween weeru koor dugg si da am bàkkaar te kon da ngay lele lele mooy lan maanaam boo bañee boo waree fay ci koor gi fayuloo ba geneen koor ñëw koor gi teew boo ko fayee ba no boo ko wooree ba noppi ngay fay nag koor bu daaw ga waxtu woo wooree ba jant so da ngay mudd ngay fab jox ko miskin bis bu nekk boo wooree ba jant so nga fab mudd mooy ñii sa ñaari loxo ci ceeb moo gën boo ko mënula am nag dugub waaye ceeb bee gën nga joxe ko loolu moo koy kaafaara boo xamee ne da ngaa sàggan ci fay koor ba geneen koor ñëw noonu rek la jeex na kon nag ñu ñaanante ah bala ngaa ñëw benn jottali rek waa Ibaadu Rahmaan ñoo leen yëgal am nañ conférence bu quatre heures ci Kër Mouhamed. Kër Mouhamed. fële ca wetu Sànce wetu Sànce. Kër Baye Dina. bon sëñ mi ngi dafa ñaan pour ah waaw waaw waaw ba tey waaw jàll ko Thank you. ñaan mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu danaa ba ñu yàlla julli kenam di leen nuyu te di leen sant ci daje bi ñu daje fii muy waxtaanu lislaam waxtaanu lislaam mooy waxtaanu sëñ Tuubaa suñu borom nee na junni ci jamono bi mu sàkk la nga tax muy junni ci jamono jamono jëfam la suñu borom di junni ci lu dul aw meloom wala jëfam kon day junni rek ci loo xam ne daf day wane ak màggam lu mu ci jur nee na doomu aadama ak perte la laloo mu seet ci mu ne ludul gaa ñi nga xam ne gëm nañu yàlla dëgg dëgg yu gëm te jëf jëf yii nañu leen ko sante te ñu dénkante ñoom seen bopp topp dëgg dénkante muñ mu ne yéen gaa ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla te muy dëgg ci yéen kenn ku ci nekk nay seet bakkan bu ne nay seet la mu dawal ëllëg fa mu jëm te du fa ñàkk jëm mukk fu mu mën a jaari fa lay mujj te ñun ragal yàlla ñun yàlla kat ku dañ kumpale ku ñàkk kumpa ku xam lépp xam gu leer la ci lépp lu bakkan jëf moo xam guddi la wala bëccëg ci lu nëbb wala lu feeñ kon bu leen nekk di muróog gaa ñi nga xam ne fàtte nañu yàlla ba yàlla fàtte leen seen bopp fàtte sa bopp mooy fàtte jëf lu lay jëriñ fàttee jëf lu lay fett lu ëllëg fàttee jëf lu lay musal ci mucc jafe ba nga xamee ne ku muccul doo ko mucc mukk sax nga ci alkare te ku mucc ànd dugg nga ci xéewal boo xam ne du day muccati mukk mukk mukk suñu toll ba abadan mu ni niti àjjana ak niti safara ñu jëm àjjana ak ñu jëm safara du ñu niroo mukk bokkuñu yoon wu ñu jaar du ñu niroo ay jëf du ñu ànd itam ndax ñi dem àjjana ñooy ñi yàlla texeel ñi dem fasal ñooy la ca def bu ñu dee waxtaan nag Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ànd ak pas-pas bu dëggu teewlu ci suñ xel li ne wa inda dicri saalihina tanzilu rahma waxtu wu ñuy waxtaane gaayu yàlla yu sell yu tedd yi suñ borom day wàcce yërmandeem kon jotaay bii yërmande suñu borom mu ngi fiy wàcc ci dëggalu wax jooju la buñ tàmbalee di xam ne dund ci Ahmadou Bamba muy dund bu barkeel suñu borom barkeel di dund goo xam ne ko wax suñu borom bëgg na ci yonante bi bëgg ci alayhi salaatu wasalaam malaayika yi bëgg ci awliyaa ullahi yëpp bëgg ci ak anbiyaa yi yi képp ku baax te mu bëgg ci ngi yëriñal képp koo xam ne jamonoon te nga ak moom mu xam si nga ko wala gisuloo ko ak lim ci jëf lim ci jëf du ñu fekk lu leer képp koo xam ne am nga bët ci xool wala nga am xel di setantal yàgg ngeen a dégg ñu naan ba ko fi tubaab bi jëlee yóbbu ko géej bu fekkoon ne dellu siwul kenn dootu ci kaala wooti xam ngeen ne bu ñëwul woon itam noonu kon tubaab bi dana fat juróomi lépp te kon ñëpp daañu mujj génn ci yoonu lislaam bi ay nasaraan ñi nga xam ne noonu lañ ko waxee te kon kenn du mucc bu dellu si yoon it danañ jéemoon ci moom ñu mën ko dara moom ci boppam du àggale yoon mu woon ñi ci desit bi du mucc kon nag loolu rek tàmbali waxtaan jigéen wan ne na liggéey bu yaatu a yaatu la boo xam ne ku ko tàmbali da nga am loo wax ba nga biir di set mane ne ak dundam di dund bu barkeel koo xam ne yàlla bëgg na ci yonent bi bëgg na ci alayhi ci zahir bu mu tàmbalee gane adduna bi ci mu dale jàng ba fi nga xam ne alluwaam sori na lool mu tàmbalee dimbali waajuram ci daara ji di jàngale di fekk bépp téere boo xam ne wesar la te mu am njëriñ mu woy ko na mu gën a leere na mu gën a yomb wattoo ànd ak di ko jàngale ba waajuram muy maam moo am di sab téere yoo xam ne Sëriñ Tuubaa ci boppam moo ko taalif te boobu bu nekk ci waxtu ndawam di ko jàngalee diirub li nekk ci àdduna muy maam moo am tasali Sëriñ Tuubaa jëfu ludul jàngale ak jàng nekk ci nañ ko xame woon ci jeex ci yàlla takk xoolul dara ci àdduna am cawarte bopp ci topp yàlla ànd ak xel mu ñaw ba jaaxal nit ñi farlu goo xam ne du sonn mukk boole ak ndigalal waajuram woowu ba li si Maam Mor Anta Sali jógee ci jógee xam ngeen ne la soog a tàmbali fas yoonam murid ndax jàngaleetum lu yàgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam feeñ ko ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dër sa mbooloo mi ànd ak yow na leen yare li suuf yéene di wax himma te bu leen yaree jàngal rek mu yoon woo xam ne suñu borom daf koon raxot ci ci réew mi ngir texeel ay nit yëkkati daraja yi ay nit ba àggali leen ci yàlla nit ñoo xam ne bu woon yoon woowu ñu xotti ba ñu jaar ci am ku leen di gindi di leen teqal ngal jaar leen ci yoon woowu ñu àgg fa kay ñu waroon a àgg suñu borom bindal na ko ca ëggal mu doxale ko nag ci Sëriñ Tuuba bu mu bindee duñu ko feeñoo ba xamal ko ndigal loolu la suñ bu xëy benn bi woote ne leen képp koo xam ne àndoon ngaan man ngir jàng ak wut xam-xam yéli naa la nga seet feneen foo ko mën a amee ak fu mu doone koo xam ne nag li ma bëgg nga bëgg li ma wuti nga wuti fas yéene jaar ci yoon wi ma jaar mu nga def ànd ak man mu wuti yàlla ak yonent bi ba mu daatan àgg foofu fekk na ni nga xam ne noonu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko suñu borom soogee yónni ni ko wa anzur ashirataka al aqrabin na nga tàmbalee ci di xub di yee di woo sa mbokk yi gën a fës ci yow Sëriñ Tuubaa ngi tàmbalee woon ci ay misaal ak gaawaale daana topp allo di tëral itam ay bindi xam-xam léeg-léeg daana allo ba mu yàgg mu ne ah, lii de lu màgg la doomu soxna di jàng ba wattu ko ko bopp ñu di ko topp mu wow koŋ yàq nañu ko lu a am solo la ci suñu borom waaye am na leneen lu gën a borom am na leneen lu ci gën a màgg ñu naan ko moom gën a màgg jàng alxuraan doon nañ ñu lu mu doon mu ne xanaa jaar ci yoon nga xam ne boo ci jaaree bu al malaa'ikatu ala maanaam malaa'ika yi ci asamaan bu ñuy déy nga dégg déy nga bu ñuy bind ca làppul maxfuus ngay dégg na xalima day ci cijee loolu mooy lu gën a màgg suñ du dina bu sag ci ndànk di wuyee ndànk ba nga xam ne suñu borom ne fasda bi maa tuumaru wa aarid anil musrikiin fasda bi wa sallam léegi biralal saw yoon wool nit ñi ci njéeméer keroot la leen wax wax jooju ne ñii walbatiku ne ñun xam-xam la ñu bëgg dem seeti feneen tàmbalee woo seeni xarit ngir jëme leen ca la ñu doon jëm ñi ci def am xel suñu borom dugal ci ñoom xol bu leer ñu xam ne kii li mu daan bind mooy li mu bëgg a jëmale te ku ànd ak moom dana àgg foofa te yaay gën képp ku dul yow yaay gën képp ku jaarul ci yu yoon ñooñu dal di jaar yoon woowale mu ngi ci loolu xam ngeen ne ama sakin maanaam ci atum maanaam mois li euh, Sali jóge ci Mbàkke Kajoor ñun ci at moomu la wax loolu ci at moomu la dem Mbàkke Bawol ñeenti at yi mu ko def mu dugg nag wane ne ñu mu àndal ci yoonu tasawuf lu leen jaarale yoonu tërbiye tërbiye ak tarqiya xamal leen yàlla diggante boobu muy yëngu-yëngu bu mag nit ñi di ko dégg ndax yoonu tasawuf mësuñu ko woon a xam ci réew mi xam gi ci war mësuñu di mbooloo mu ci jubbandoo te ame ca noonu itte di ko doxal na mu ware yëngu bi réy lool mu réy lool ci nit ñi ñii mu tiis leen ñii ne ñii dañoo def ñii naan ñii kii de li mu indi ci réew mi mu fi am te ñu jàng bari na waaye kenn ku ne dégg kuy waxtaane nii wala ku jàpp ay nit ay doomu jaambur leen defaloo leen dara di dul futti leen ñu liggéey di sikkar suñu toll bi yu baat ñu mel ne ay def bëggatuñu dara xoolatuñu dara xamuñu seen i mbokk xamuñu kenn loolu moom rek la ñu mu def ko ba mu defee xam ngeen ne doomu soxna moom du bëgg mukk ku ko gën du bëgg ku ko raw du bëgg it ku ko ku ko ku ko gën a xam lu mu xamul wala koo xam ne kii da koy féete kaw fu ngeen daje loolu am ci ñoo xam ne neexu leen ñu tàmbalee feeñal ay jëf yoo xam ne lor lay doon ci ñoom sëñ bi ak ñu ko topp ba diirub ñeenti at yooyu xam ne sañ seen ci Daaru Salaam xam ne ci la wàcce lu mat juróom ba juróom benn ci ñi xam ne ñoo njëkk ànd ak moom diggante Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Sarr sëñ Assane Ndiaye sëñ Gaawaan ci at moomu la bind Masaalikul Jinaan boobu mu ngi toll ci fanweeri atam diggante boobu nga xam ne ci ñeenti at yooyu ci la wër réew mi ba gis cheikh yi ci nekk ak muqaddam yi ak borom xam-xam yi ku ci nekk mu dëngal sa ndax ba xool la ca nekk ba dellu siwaat adduna bi xam ko wëlbati wëq wuti ko ñii mbindeef moo xam ne ku yàlla def na ci moom secret boo xam ne képp ku ne ko jàkk sa ñaari bët dootoo xamati looy def boo jógee moom foo mën a dem sa xelal moom da nga koy bëgg ba dootoo ko a muñ te da nga koy yëg ba nga xam ne bu toogee doo mën a yëngal dara foo toll day mel ne mu ngi téye sa naw yi loolu ne yëngal yëngu yëngu bu mag ci biir diggante doomu soxna yi yàlla dogal ci mbir mi gën a màgge jamono yi nga xamee ne fekk na ñu xeexoon Samba Sadio Lat Joor mi ko soosoon ànd ak tubaab bi ba rëy Ahmadu Seex ba mu dal bi xamal Lat Joor ne ko bu ñu xaree xare bi ba dàq jàpp jaam yooyu lu dagan la ci yoon alal jën sa mënuñu muy alal ju xajul fenn mu ubbee buur boobu ne ko mu lislaam daganal la sëriñ si wax ko bi yàlla dogalee nag am kenn ku bokkoon ci sàngami Lat Joor yi dem jébbalu ci sëñ Touba sëñ Touba ne ko jaam yooyu nga xam ne yaa ngi ko jëlee woon Tamba Sadio yëpp bàyyi leen ñu dem te alal jëm ko jëlee woon yëpp na génn sa loxo bi loolu amee ceddo ci seen bopp dal di gis ne kat fii kat fii ne te tas na atte bi nga xam ne moom la sëñ si atte woon ndax ne Ahmadu Seyfu dafa woote woon ak yonant ne yonant la moo tax ñu daganalal deretam daganalal jàpp jaam ku mu àndal daganalal itam alalam loolu di lu leen diis mu jaaxal leen ñu gis jëmm gi nga xam ne moom moo dem tuubi ci sëñ Tuuba ñu di ko fexeel ba woo ko bërëb teg ko ci jotaay ne ko yow day fekk nañ koy léegi nag ci wolof danga àndoon ak say nawle ngeen bokk ndabal teranga di lekk ba mu yàgg nga jóg wan leen gannaaw loolu doyatu la nga xëpp suuf ca ndab la dem sa yoon loolu la nag la ñu xamul lu ko waral moom lañ bëgg nga wax ni ko tey moom it mu tontu leen ci léegi wala ñu leen man day dama nekkee ba ci digg jóguma rek wan leen gannaaw ci lax su leen suuf ma xarax ba xamatuma lu may def ba ma jógee nag suuf si tuuru ci ndab yi ñu daal xam ne moom daf leen a néeg leen dafa am lu dugg ci sama xol loo xam ne soppi na sama xol soppi na sama xel ba li may def seetatuma ko loolu nag lay kon nday mbund ga ci la mbir may leere buur bi nag tàmbalee bind seen Tuuba ak di ko yónnee ndaw ngir bëgg mu ñëw mu laaj ko nag àtte boobu mu àtte fi mu ko gisee sëñ bi xamal ko ne gis naa malaayika yi suñ yi di jàngal man may dox jëm ci benn buuru adduna bu dul yàlla loolu du ma ko def Cheikh Adama Sall mi nga xam ne moo mujj yóbbu lettre jël ci sëñ Tuuba yóbbu ca Lat Joor nee na lettre bi mu ko jox bi mu ko mujj jox bi mu ko joxee xooju ja bi mu koy jàng dafa dal alhamdulillahi alkarim silmilan ala stifadi bi furudin wa sunan sakartuhu lianna qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani wa hadani li